Ahmadou Bamba comme nous l'avons la ko rek. Mhm. la fente plus connue sous le nom de bec de lièvre. Mhm. bec de lièvre parce que euh, lièvre comme game bi nous mel non à peu près une minute ñu à peu près photo mhm. comme ça ñu cause conséquences et prise en charge moytu dama ko indi pour ñu gën a xam carrément feebar bi gis ngeen ko comme ni ngeen ko gisee tuñ bi mooy xar mhm. ak tamit palais bi palais bi mhm. maanaam dénk leen comme en wolof mhm. mooy xar li koy indi nag bëri na parce que ñu bëri xamuñu lan moo koy indi fii au Sénégal dañuy jàpp ne benn malédiction la rek ak yooyu alors que feebar la li koy indi mooy euh, mariage rapproché yi parfois moo koy joxe wala c'est héréditaire aussi su dee sa yaay amoon na ko wala kenn ci sa famille c'est possible aussi nga am ko ak tamit la malnutrition fan manko don ngi ko wax euh, si solo si lekk bu baax. Mm-hmm. su dee sa yaay la ëmb te du lek yenn yenn yenn aliments yi acide folique bi jëlu ko normalement mën na indi li nga xamante moy mooy bec de lièvre. wala tamit une alimentation équilibrée équilibrée. Mm-hmm. wala tamit bi mu la ëmbee aussi mu ngi jël yenn médicament yoo xamante ne waru koo jël xam nga soo ëmbee yenn médicament yu bëri dañ la koy tere mm-hmm. Mm-hmm. alors ko yow loolu soo koy jël te adéquat wul ak sa santé mën na la jox tamit maladie bi wala ngay tox ñuy tox aussi souvent dañuy dañuy am bébé yu mel nii mm-hmm. wala euh, comme manque acide folique bi waxoon naa ko loolu léegi pour dalal xelu nit yi rek parce que nit ñi suñ ko amee dañ lay stigmatiser duñu xam lu ñuy def surtout lii dañ koy faj dañ lay jël dañ lay defal chirurgie dañ koy faj. Mhm. nekkul lu lu graaw lu graaw trop. chirurgie lañ lay defal soo gisee xale bi gis nga mhm. dañ ko faj ba mu wér maram jiite soo mënee indi dernier image bi nii. Mhm. su menee nii après dañ la koy fajal. dañ la koy fajal kii pour rek dalal xel nit yi ñu bàyyi di stigmatiser ñu. dem nañ ba Sénégal dañ naan. xale bu mel nii yow soo ëmbee xool ko sax. da ngay amaat loolu donc esprit yoy ñu koy war nañ ko dépasser yoy da loolu tax ma gëna ma gëna choisir thème pour indi ko parce que nit ñi ñong ngi koy dund xamuñu naka lañuy def pour fajj ko mais ça se soigne surtout stigmatisation bi ci am africain euh, hein, dafa gaaw si loolu voilà parce que sa kanam déformé na rek yow dañ lay dañ lay stigmatiser pour lan lolu alors que feebar la mhm. parents yi aussi suñ ko amé buñu ñu tiit Bartimée euh, dañ ko doon soigner gratuitement parce que nous avons des partenaires ba léegi nii un am bébé bu mm-hmm. prise en charge mm-hmm. juste pour dalal